thank you cent limite daal leen nag jàmm ci seen émission préférée 15 minutes sans comme ça su ne rek 15 minutes rek ci people tey wa axlu làmb la ñëw seet si actualité oblige Pape Sarr nag la dalal Pape Sarr ku ko xam xam ne doomu Pikine la ku ko xam xam ne bras droit kii nga xam ne mooy Eumeu Sène waaye it nekk ci Ama Baldé du noonu boo booy ñaa waa Pikine cent pour cent pikin Pape tey ñu dalal ko fii ci cent quinze minutes sans limite wante nag waxtaan bi du man kese dama koy sekk ak sama naataango ci kanam incha allah moom mi dina présenté ak internautes yi mais avant tout rek Pape ñu bàyyi la nga nuyoon toog suñu internautes yi. waaw fay naa la di la nuyu bu baax baax di nuyu équipe bu sans limite yëpp di nuyu suñu caméraman yi ak ñi ngi fi àndal ñëpp. di commencé ci seen directeur bi ci kaw ba ci suuf ak ñi fa nekk ñëpp yàlla defal leen télé bu mag bu mag a mag a mag. waxtaan bi comme ni ma ko waxee rek du man kese dama ko seq ak sama naataango feeñagul nag waaye ñu ngi leen di préparer présentatrice bu doy waar ah. xaar leen ko très bientôt di ngeen ko gis ci sans limite mu nuyoog yéen rek mais dañ koy nëbbagum ba ci kanam. maa ngi lay bu baax. sama première question dama bëggoon juste laaj yow nan ngay décortiquer combat bi Boy Niang ak euh, Tapha nan ngeen doon xaaree komba bi ak nim mu ko bëree wala nga laa bëgg nga décortiquer ma ko. waaw euh, dañoo ñëw yàpp suñu rakk Boy Niang ay mbokk euh, Tapha ay mbokkam yàpp ko Boy Niang dafa am staff ne ko nii ngay bëree ak Tapha mu ñëw. tafaatin indi leneen toog ci ay tànkam erreur bi booy ñang def mooy ni ëmma seen bërig sulay lay topp la waroon bërig tafaatin di ko wër-wërloo ba juumloo ko daan ko mais munoo bërig luur bu tol noonu sut la ëpp la ngay wéeru ci ay ay ay côté bam ba lii di ci am erreur boobu la def mais képp ku xam ne booy ñaa xam ni ndaanaan la tafatin du cuune tafatin champion la kenn du bëreeg moom nii tafatin li booy ñaa am ci moom nii jafe na mbër di ko am ci moom parce que gis ngeen ñëpp gis nañ ñu bombardier nu mu toll bi mu jàkkaarloog tafatin tafatin daf ko corriger Elton mu ëpp fuuf booy ñang bi ko tafatin téye da ko corriger kon xam nga ñun champion lañ doon dajal ñu doon daan ay doomu jaambur ay doomu jaambur lañ doon daan tey bu ñu demee ba daanu duñu ñànki dañuy féliciter suñu adversaire di encourager suñu rakk mu dem defaru ji waat loolu mooy wax man loolu laa xam parce que tey Thiès ñëpp xam nañ ni rakku Balla la du dëgg Sa sa ëpp ngemb Tapha ay ay géejawaay yëpp ñëw ëmb ko keroog biñ ko daanee ñoom dañoo muñ xam ne lii nii sport la tey kon ñun buñ ñu daanee ngir yàlla nañu muñ. buñ leen daanee na muñ mais sànq dañu gis benn vidéo Pape wax jooy ci sortie De Gaulle Pape lu bi moo tax ma jooy parce que kilifa du waxee ni mu wax il faut ma jooy. parce que bi ngi bi ñuy ñëw fii tey ci suba ba tey démb ba léegi nelawuma parce que nelawuma mooy ni tey dafa am loo xamante ne da ko teg ci doomam man rafetluwuma ko sa doom boo ko fekkee muy naan sàngara sax sàng ko sutura doom ju baax la am doom ju yaru doom ju jox ñëpp cër la am mu ngi caaxaanee lu mu xamul mu ngi foowee lu mu xamul mu ngi wax ci doomam boo xamante ne tey mooy esaaram moom booy ñang man maay dindi li dégool wax sa der boobu noonu ne doo estaar yaay estaar bi parce que yaa ko tabaxal kër dugal ko fa booy buy lekk suuf kenn du xam booy di naan soom bi kenn du xam kon kooku noonu danga ko war a teg foo xamante ne kenn tegu ko fa moom nga war a gënale sa doom yi parce que tey jëlee na la situation yu metti teg la fu baax dañuy waxante dëgg tey moom damay wax tey lii musuma arrivé ak dégul mais tay dafa laal suma xarit suma rakk muy ku ñu jox cër xale bu amul benn problème te boo euh, dégul bu buggee ñëw ne day raxas kër gi. est-ce que loolu indiwul jooyi nga problème bi mooy dégul xamul suma soxla du dëgg. man làmb moo ma sonal. billaay wal kitaab bu làmb amul woon Sénégal kenn du ma fi ëpp immeuble làmb bu amul woon Sénégal ñi fi ëpp immeuble ci lay bokk man làmb yàqal na ma suma ñetti dibiteri làmb moo ko yàq man 1997 damay encaissé journée deux cent vingt cinq mille journée deux cent vingt 1997 laa wax journée deux cent cinquante mille dam koy encaissé du dëgg man sumay sumay su may su mbokk amul kenn ku ci macha allah kenn ñëpp ci ay situation yu baax lañu nekk ñi may àndal ñoo xamante ne tey maa leen doon tette ba ñu am doole ñëpp ñu ngi ci Europe bi am na koo xamante ne tey suma ma ñàkk tukkee te billaay wal sànniwul buum bi may defal du ko defal sax ay waajuram su ma ñàkk la tukkee du ma tudd turam nag mais xam naa ni moom fay na moo ba wis du dëgg làmb bu amul woon senegal Pape Sarr bu toppul woon làmb amul ku may ëpp Pikine immeuble parce que période bi Italie nga xamante ne Italie billet moo fay yóbbu amul visa maa ngi maa ngi toogeeg lu mun a yóbbu dix-huit personnes lépp lu ma yàqule làmb moo ma ko yàqal lépp lu ma loo xamante ne rek aw ma ko waaye man maa ngi deseek yàlla maa ngi deseek ay nit ba tey ñànkiwuma jaayuma sama ngor ñiñ ma xamee ba tey ñoom laa nekkal est-ce que jaar na ko Pape ndaxte bu nekkee soo amul immeuble nga doon am journée deux cent cinquante mille mm. sa alal lépp ci làmb te tey yow au retour li nga ciy am mooy ay xas ay menaces wala prise de position yoo xam ne yow dina la jaral loo xam ne day mel. non man kenn xasaguma fii ci làmb doomu pikin xasaguma doomu Pikine xam nga lan la sekk ak Pape nga am sa tàkkosaan woo Pape Sarr li doon def ci làmb defatuma ko. jëlatuma samay nit di leen boole ak mbër non non xam nga loolu moo tax du mbër bi de mais jege ndaayoo mbër yi ñooy ñëw bëgg la jàppee benn ennemi yooyu dem nag ba jot ci sama yaay meer bi tere ma yu bari dëgg dam ko doon xañ di jox mbër yi du xañ sax mais tey li ma daan sonn ci mbër yi ah loolu maire bi ci la ñëw waxtaan ak man yu bari man bàyyi naa ko du dëgg mais dama ne la père de Gaulle laay wax am nga doom ju baax balaa ngay génnati di wax nanga waxtaan ak Boy Niang sorti de Gaulle bii mu def nii Boy Niang yëgul yaay Boy Niang yëgul Tapha Kandji yëgul moom moo ko def ak bakkanu boppam te ñu duñ ko nangu moo jur Boy Niang moo ko jur de waaye ëppale wuñ ñu si de parce que ñun ak ñi nekk ci buntu kër gi ak ñi topp booy ñaa dërëmu booy ñang ak seen dërëm ak seen ñaar dërëm yi ñu doon jox booy ñang ñoo ko eggal fii ñu mu egg nii booy ñang gàcce ngalaama xale bu am jomla ba pare di sonn ci ay waajuram di sonn ci ay waajuram sorti bi dara baaxu ci li mu def nii dara baaxu ci rafet rafetluwuma ko bi may def sorti bi tàgguwuma ëma seen du Eumeu seen nag ma moo tax may génn di wax ah. en tant que Pikinois looloo tax may génn di di wax non jooy. daay jooy billaahi dafa yëkkati téléphone ma koy woo munu xaw ma sax la lay wax te pourtant Eumeu seen bi ko yaayaa jàmme invité daf fi bàyyi mbër yëpp yóbbu Boy Niang ba dañ koy jiiñ ni Boy Niang rek nga bëgg pikin kon lii ñaaw na lii ñaaw na nga koy teg ci deru doomu jàmbur booy Niang ñépp la amal jàmm fii pikin bu mu indil doomam ay noon lii day yàqal booy bi lii day jaxase booy bi booy bi dafa nekk ci defet préparer combat dem France tukki sonn ci ay làmbam di contact dégg nga ñëw yàlla xañ ko ngay ñànki yàlla moo ko xañ yàlla moo ko doon may na gëm yàlla na gëm yàlla parce que ñun ay doomu jaambur la booy ñang doon daan booy ñang def na lépp wanewul cuuna ci làmb ji dóoruñu ko mu daanu deful dara xeex gaañuñu ko demul ardo lu dul dem ba ci biir bëre bi sa loxo damm xale bi nga xam ne sa loxo damm tabax bi tabaxaguñ ko sax nga génn ci site internet yi di dal sa kaw doom sa doom boo ko juree boo ko juree da nga koy sàng sutura booy dafa saltel doomam te tegu tegu tegu ko fenn doomam dafa teggi ay consignam teggiwul dara teggiwul dara booy ñang jarul conseil lu ñuy conseil ci booy ñang booy ñang jarul soxlawul conseil mun na bëre mun na xeex da lay dóorta da lay dóorta doo ko dóor dalay lay dóorta doo fayu mun na bëre mun na xeex booy ñang warul woon xeex ak sax ak tafatin parce que boo munee bëre xeex da lay sonal booy ñang kese mun na conseil boppam booy ñang daf fee def loo xam ne ni bàyyi bëre ba bàyyi bëre defuñu ko fi Ama Baldé daf fi def yoo xam ne ni champion ñu fiy tudd yëpp kenn defu ko fi ëmma seen noonu mais lii lan la nañu génn ci xale yi bàyyi leen ñu dem bàyyi ko bàyyi dañu bàyyi xale yi ñii nga xamante ne tey dañoo yàgg di sonn si ñoom nañu génn ci affaire xale yi bu dul loolu lii bu continuer billaahi wallahi watallahi man Pape Sarr maa ko wax Pikine dinañu bëri seen biir. kenn mënu ko xaar ñaar ñu gis ni yow tamit yàgg Jalis Pape Jalis laalante ngeen ci combat bi ñu bëggoon xam yéen ñaar lan moo lan moo leen boole. lan moo leen Jalis. taxawaayam dam koo rafetluwul. Pape Sarr mënul ñëw jël ut ay keesu kanet dem di ut jàmm pour sa làmm dem ba ci kaw tribune euh, supporteru Tapha Tine di leen séddale ay kanet dem wax ak gémi yi dem wax ak ñi nga xamante ne sama sortie yëpp pour tey ñu aar ba xel comme baas nga xamante ne tey am na ñoo xamante ne seen baa ngi jéggalu ci publicité bi waaw rond-point Cité waaw maa ngi jéggalu ci publicité bi waaw ñoom sumay frère lañu sumay mbokk lañu nag ba ba ci pële ñu gunge bawal bawal yi gisoo koo xamante ne làmb ji jeex na ñu gaañ la fa wala nangu sa téléphone parce que làmb euh, nit ñi di dox du làmb rek la ñuy seetaan am na ñoo xam ne dañu nekk di liggéey jóge ville ñëw di ñibbisi si jàmm ñu ñëw dogaale leen nangu seen alal te teguñu ko fenn ñun dañoo dindi loolu fii Pikine xeex ko ma nekk ci kaw tribune taxaw ci digg géew bi ànd ak président supporteru Tapha Tine pour non violence Pape Dialis jóge fële fekk ma ci làng bi ñëw di ma naan daf may booleeg gémi pour ñu génn ma stade bi loolu fan la ko teg. parce que doonul wax ji da cee jot du genre que moom euh, làmbam dañ koo mottalil est-ce que jotul ci wax jooju. boobu boobu nit ñi boobu man maa ngi ciy doog non maa ngi ciy doog a wax ni loolu maa ngi ciy doog a wax parce que lim ma déedéet déggewuñ noonu man laa la wax xamul kuy Pape Sarr moom Pape Dialis xamul kuy xamuma woon. mais bi mu indee gémi yi chefu gémi yi moo ne ko kat won ko xawma ma da koo won vidéo bi fii bi may présenté non violence ak yooyu noonu mais dama buggoon rek mu boolee ma ak gémi bi gémi bi téye ma génnee ma li li gën a garaaw ci combat si tamit mooy am ci jour boobu billahi wal kitaabi làmb du fa am parce que man xam naa nu ma mel ak waa Pikine dañuy wàcc si stade bi moo tax su ñuy def nañu xool lu ñuy def soo mënul tëgg làmb da ngay bàyyi dégg nga ngir yàlla war a suuri nga dem jege ji Macky Sall bële loolu la xam nga bàyyi làmb ji Pape Abdou Fall ak soo meng lig Nicolas rent dekaay yaa ngi may dégg non non du samay samay nit lañu mais Pape Dialis mënul tëgg làmb ah, organisé te nit ñi ñu ngi koy wuyu si boo ñëwee ne mënul tëgg làmb est-ce que tamit loolu du sabab sonorisation deux cent cinquante mille munoo ko ba sa signature contrat tas nga taxaw naan fii ñëw di di accuser nit ñi dugg ci biir géew di sonnal journaliste yi di leen teg mel ni ci kaaf lañ nekk xanaa gisoon ni mu def journaliste yi lii mooy lan. organisation organisation ñun ñi ñoo ko fa def. ñun ñi xam ne ñun ñoo ñëw yëg ci kaw tribune bi di séddale supporters yi pour jàmm am loo organiser organiser bu supporters yi dalul munoo leen téye gisoo fa ñaari nit yuñ fa damm si ñoo fa am maa leen boole police. am na solo man daf maa war wër wër sama numéro ñëw fay ma wala neexal ma sans li muy def dëgg. Aziz Ndiaye def benn sortie wax ni Balla Gaye du bëreeg booy Niang mën nañ ne xale dañuy bàyyi xale bi xel wala affaire bi nan la fa demee noonu dañu ragal xale bi wala dañ koy bàyyi xel. non xam lu tax du ma avancé ci loolu xaw ma lu nekk ci contrat wu Boy Niang xaw ma lu mu sekk ak Aziz Ndiaye man dama jàpp ni Euh, Gaston Meng moo tëgg combat bi parce que bi mu ko waxee Gaston Meng génn na tontu tontu na ci loolu loolu moom wax dëgg yàlla mënu ci avancer kon su ma ci avancer rek maa ngi tooñ Aziz te suma frère la suma xarit la wax dëgg yàlla ba non non non Aziz. nga am féete ñoom Pape Ndiaye ñoom Gaston. ne Thialis mënul organiser. billaahi. wallahi watallahi Aziz Ndiaye musuma may dërëm man ay rakkam ñooy suma xarit ñoo ñëw fii ci kër gi si Cheikh Fall Aziz Ndiaye maak moom ay adversaire lañu day indi mbërëm ma indi sama mbër mais tamit def katu lu baax danga koy wax sëkku maa moom dara ba may yëkkati si ay sit internet di dal si kawam wala di ko waxal loo xamante ne amul gasoo meng bi ma defee am lu mu def man dama génn wax li may wax bu ma paree dafa yëkkati sama dama yëkkati sama téléphone ma jéggalu ko du dëgg parce que suñu papa la mais dama ne la damaa ber promoteur yëpp Pape Jalis munul na bàyyi. combat bi euh, Modou Lo ak euh, Ama Baldé ñu ngi waajal bëre doo gis ni euh, waa Pikine waay dinañ ci écarté wu. comme li jot a xew ni ñoom Eumeu seen dégg nañ ci lu leen neexul yow tamit pareillement dégg nga ci lu leen neexul gisoo ni après da ngeen di découragé ci làmb boobu di ñëw. non làmb non duñ ci découragé li waxu benn nit la muy waxu per de moom la concerné ak li mu wax mooy ni tontu nañ ko ci loolu Eumeu seen li mu doon def ak Ama Baldé dina ko def waa Pikine dama ne la 11h bu ñu tijjee stade bi. ñaari supporteru Modou Lo duñu dugg. am na solo ñu fàttali ne chers internautes ñu ngi dalal Pape Fall fekk ko fii ci pikin ñu war a waxtaan ak moom nag gis ngeen waxtaan gi nag tàng na ndax <laughs> kii di Cali sànni na ko ay xeer yu metti yëkkati it euh, Père de bi nga xam ne def na ko ñaawlu na ko bu baax a baax mais lépp ci làmb la rek mais tey kii pap Pikine est-ce que tey mun nañ xaar 100 pour cent Pikine parce que aussi dañuy gis ñi faree fii ñi faree fee clan waa clan bi mun na am ci supporters yi nga xamante ne tey dañ fee ñëw feeni mois borom kër gi nekkul ne ne leen luwaas locataires yi ñoo ñuul rax ñu dëkkul Pikine. nan ngeen koy remédier nan ngeen koy. xam nañu man xam nga tey. am na ñoo xamante ne bu ñu waxee ci booy Niang dama leen di déglu duma ci mun tus du leen tontu mais am na ñoo xamante ne damaa xam fu ñu ñëw fekk ñu fii ñu nekk suñu jàmm ñu ñëw tàggale ñu ñun nag ñoo leen may loolu man am na ay jamono benn mbër bu doon bëreeg baabooy jardin public bii la romb sol sama tisatu adversaire huile laa jël huile bidon huile sangu ko ko léegi léegi nay lu la neex ngay sol ak set bu la neex nga dugg dugg bi dama ne la samay jamono man fii fii déedéet du yëngal sama jamono fii doo fi jaar ak sama tisetu adversaire. ku la ko mayoon sa sama mayoon. sama gëm-gëm sama fit sama bëgg fi ma dëkk moo ko mayoon. wax ji may wax nii. billaay walkitaabi bu ma dëkkoon tey golf fukki loxo ak juróom lañ may jàpp duñ ma sax gëmee. may xeexal néeg Balla Gaye nii duñ ma gëmee dañ may jàpp fonk ma lépp lu ma bëgg ñu defal ma ko mais sama rax yi ñu ngi ma koy defal mais dafa am ñoo xamante ne nag nañ leen moytu ñi nga xamante ne duñu ay Pikinois ñoo ñëw dugg suñu biir rax ñu indil ñu ay problème. nekk Pikine dëkk fii mais seen xol yi ñoo setum yow ni nga mel amaana yow ni nga mel mën a supporter say adversaire ñee mënuñu ko ñi ngi dëkk Pikine mais seen xol yi li ñuy wane au fond ak li am bokkul gisoo ni tamit loolu mi ngi leen di yàqal lu bari quand même. baax mu ngi ñuy yàqal bu baax dafa bëri ñoo xamante ne dañuy signaler gauche jàdd droite daf cee bëri ampagaay ñu ñuy yàqal te xamoon nañ ni lii lay jur te pour temps ay temps bi muy commencé li yëpp waxoon naa ko tey moo ñëw. tey moo ñëw li ma doon kaas ak di wax ak yépp lu nekk dégg naa ko ci man dañ ma doon commentaire lu nekk lañ ma doon wax lu nekk laa doon dégg te lépp pour defar Pikine rek nekk benn soo xoolee billaahi wal kitaabi sort amul benn benn lamb Ama Baldé moo ma fekkul fii mu ma fekk sali ma yor foofu suma liggéey di liggéey mook Malick Niang la te bi mu daanee Malick Niang sorti bi mu njëkk def man la seet foofu mu Ama Baldé mu may dégg bi mu daanee Malick Niang bës bi nu ci am bi mu taalee otom man la njëkk a seet si dëgg fii ngeen ñëw nii du fi gëj boobu fayeekuwul juróomi dërëm laa commencé ci booy bi di sonn tey ay wax yu sew sax moo tax ma rocceeku xam sama bopp du dëgg xool su amee combat fi ma war a dem ma dem fa ñi ma war a booleek moom ma boole koog moom man loolu laa xam ci moom du dëgg mais dafay bëri ñoo xamante ne tey dañoo bëre ba bàyyi bëre ñëw ñu indil lii yëpp xamante ne ni tey millions yi xale yi di lekk defe naa loolu la ñuy mer loolu la ñuy mer day bëri loo xamante ne tey tey da leer ni tey munoo lekk ci Ama Baldé cent mille da ñëw di ko yàq wala munoo lekk ci Boy Niang cent mille nga ñëw di ko yàq wala Eumeu Sène nañ leen bàyyi ak seen alal ñoom ñu dem liggéey ji ñii làmb lañ def comme liggéey xaalis gis nga boo ko buggee da ngay dem ñefe ji dem liggéey yi lu dëgg ñu dem liggéey ji ñu bàyyi ñoog suñu pikin ngir yàlla war a suuri lii nag tey man waruma ko sax woon wax sorti de bi kese moo ko waral parce que suñu papa la suñu xarit la mais juum na juum na tooñ na. léegi ci ci papa ci moom. xaaruma ci moom dara lu dul mu génn mu génn changé waxam. jéggalu àdduna waxuma pikin àdduna la war a jéggalu génn mu génn man bu génnee def sorti man ma génn wax ak ma dem ba këram wax ak moom na génn sorti jéggalu nit ñi jéggalu ñu koy seetaan jéggalu àdduna am na solo kon ñu ngi xaar moom tamit vidéo mu def retour rek te dina lire suñ vidéo dina xool aussi sa demande ñu tëjee ko rek dernière question parce que heure bi jeex na tey ñi naan booy Niang dañ ko soteel dañ ko puus dafa toppul cursus normal <laughs> ndax lii résultat la lan nga leen di tontu parce que keroog bi mu daanoo boo xoolee ci réseaux sociaux yi ñu bëri dañu tiire ci moom ne booy bi dañ ko forcer nit ñi fallait que mu def cursus normal mais dañ ko soteel ay étapes ñu lan nga leen di tontu. noo xam nga boo daanee Sa rek Sa rek boo demee ba am ci moom ndam Sa boo ko daanee rek mun nga egg nga ci kaw Sa ak nii nees la bëreel nees xoola nees nu mu toll mu téye nees daan ko yàlla may ko ndam ci nees nees ay ndaanaan rek la daan champion la Ama Baldé ngi nii bi ko nees daanee Ama dëmm la rek lañu ñu bi ko nees daanee laa ak guy gi bi mu ko daanee dañ ne moo gën a cuune pikin du dëgg bi mu commencé jël kalaaf bi ñu commencé tey man li ma si gën a métti ñooñu di doon doon ko xas boo soo amee defet ñooñu doon la xas tey boo demee am benn ndam ñoom ñooy sol sa tiset ñoom gis nga doomu aadama walla man dama bëggu man xam nga laa bëggu ci nit lépp looy xeeñ na nga diwoo ko <laughs> waa Pikine lépp lu ñuy xeeñ na fekk ñu diwoo ko nit day day day xeeñ li muy diwoo. nañ ko diwoo. di ko diwoo. waaye di xeeñ loo xam ne diwoo ko. dafa bari fii suñu nit ñi bu ku bëgg ñu fonk la fii pikin na yemale dërëm ak million ñu bàyyi xasaate yi ñu nekk benn booloo gis nga bu dul loolu fii maa la ko wax fii ak juróomi at xale yaa ngi ñëw de dinañu bëri suñu biir comme suñu mag yi ñoo fi nekk mënuñoo defar kii di waxee nii kee di waxee ne bu yàggee ñu bëri suñu biir dégg nga li may def nag maa ngi jéggalu ñépp képp koo xamante ne rek sorti De bi tuuse na la muy ngay Pikinois muy waa kër Balla Gaye yi mu laal waa kër Fallaye Balde yi Zil Balde doomam supporteru doomam yi ñi bëgg doomam famille yaayam képp koo xamante ne tey mu ngi nekk si njabootu booy Niang wax ji tuuse la man Pape Sarr man sama bopp maa ñëw jéggalu la di leen wax ni ñu ngi xaar mu génn wax ak askan bi génn xam ni kilifa la balaa muy génnati man de loolu laa koy baat bi laay mujjee ak moom balaa ngay génnati di wax wax dëgg yàlla comme avance bu ñëwee ci kër gi balaa nga koy jël estapé dina ci wax balaa ngay génn da ngaa war a tàggoo jërëjëf